gu metti moo xew ci kaw sarafal bokk ci commune bu Touba Fall bi juróomi waxtu ji jot ci ngoon lu toll ci ñetti kër yoo xam ne ñoo tàkk ba jeex tàkk. metti waayu fuñ ko appareil passé na ko ndax dund bi fi amoon yëpp lakk na bagage yi fi newoon lakk na dara daal desu fi ñetti kër bagage yi fi newoon daal dara dara jëm nañ ci jëm mënuñu ci ci dund lépp lakk na muy gi jur gi du lenn loo xam na ba tax na ñi dëkkee ci dëkk bi lu dut seeni bët dem ci noonu doy na waar doy na waar lakk gi métti na noo ko gisandoo ne génn woon dara waaye noo ci bakkan di sut waaye noo ko gisandoo lakk gi moom fu ñor di yem ñor na moom gis nga ko lépp lakk gis nga gerte gerte gi nii pep mi soq gi dara desu fi ci ni ruy nañu booli ruy nañu tey bu ci biti la ñuy tëdd waaye na waar daal noo ko gisandoo daal lépp lu ñu doon suturloo daal saa borom ñëw naak du ko rob yàlla lakk na mat la lakk na li ñu doon suturloo lakk na dara génnu man nga ne dara génnu rek lu ëpp ñaari waxtu lakk gi di wéy ba tax na am na ay dégâts matériels yu bëri yoo xam ne jot naa am bokk na ci tamit jafe-jafe gi nga xam ne jotoon naa am ngir faykat lakk yi man caa egg di sapeur pompier muy wàllu yoon wàlluk ndox ba tax na ñu koy jàmbat seen benn forage boobee bokk na ci li gën a yokk yi fii ndax jafe-jafe la amoon ngir fay googu rek la gi bi mu amee nii li ko gën a jàllankoor gën ko metti mooy problème ndox parce bi travaux bi ndox bi lakkee am booba ndox amul parce booba travaux bi xelliwul ndax ñàkk xelli gi mooy booba amul ndox li mu aman jeex na ci ndox parce que bu déparé mbànd mi mu war a fee saa bu déparé bu duy mbànd mi men su demee mbaa demee du fees diggi mbaand lay am bu ko ubbee du mat waxtu mu jeex tàkk naanatu njëfuñ dara problème fi am jaaxle gu rëy rëy am fi ne daal problème mu manque ndox lañ moom mooy suñu problème parce que tey ku ñu ci dimbali ñu jël ndax fi ni benn forage pompe baaxul buy aj day tuuru buy wàcce day tuuru askanu naanatuñ defatuñ dara waaw loolu moo waral lakki law ba fii sax moo ko waral ndax ndox moo amul waaw forage baa ngi fi mais mais ndox la amul waw forage mi ngi dox mais ndox la amul parce que pompe yi day seen doyul dara bu xëyee di duy mbànd mi war a def téeméeri bërigo juróom fukki bërigo lay aj juróom fukki yenn day seen donte na xamuñu lu sabab gi la lakk waaye sapeur pompier yi mujjee nañu ko fay xeetu lakk yu mel ni lee ñu koy nemmeeku ci yenn ci dëkk yi nga xam ne ñoo wër dëkk bu sell bii di Touba jafe-jafe yi nga xam ne dañu koy jànkonteel muy wàllu ko yoon ak wàllu ko ndox dëkk bi nag a gannaaw lakk ñuy sàkku nag ci kilifa yi ngir ñu dimbale leen jamono ji lakk gi yóbbaale na lépp